vraiment remercier encore une fois le président de la République qui décision bi mu joxe pour ñu fay contentieux ex des chemins de fer concernant le dossier des extemporaires mais mu am ci lu xawa a jaaxal nit ñi lool parce que biñu ñu di fayeku dañoo gis ni dañ leen dag 5 pour cent ci seen xaalis bi ñu war fay ñu ni dañoo joxe ordre dafa am collectif bu joxe ordre ni ñom ñoo joxe ordre pour ñu dag ko ci seen seen indemnité ñu bëgg léral ni on est là ñun ñet syndicat yëpp SUTRAI fetray SATRAI on n'a jamais été informé amul benn yoon bu ñu informé officiellement en assemblée générale que en bureau que nous danañu dagg 5 pour cent ci suñu indemnité de reversement suñu comme encore contentieux social. beneen bi ci des am na ci ñu bëri ñoo xam ne dañoo defoon ay réclamations Nous avons bopp ci liste yi am ñoo xam ne dañoo ñëw di fayeeku gis ñoo ñoo ak service ñu leen montant lool mu jaaxal leen donc euh, biñ ci waxtaanee ak agent judiciaire ce matin au téléphone il nous a demandé il nous a il nee na nous recevoir la euh, semaine prochaine parce que dafay voyager. voyager. nous attendons cette audience pour nous mën la situation bobu yëpp. dañu nous recevoir mais dafa am décès bu mu waroon dem nee légui dafay voyager mais semaine en début de semaine prochaine mardi il a bien précisé de nous recevoir pour nous tok wax ci lolu mais après à la compte rendu les camarades ont dit que lu dem ci walu 5 pour cent sax mu ñu recevoir pour wax ci ak ñun nako reverser parce que autorisé wu ñu benn yoon fu ñu daggee ci seen xaalis 5 pour cent. nañu nangu nous avons en face de nous un état qui qui qui réagit toujours mais n'agit jamais au bon moment quand je dis ça mooy dañuy xaar ba dara am ñu doog a di agir ci loolu le président Macky Sall mu xam ni li ko taxoon jóg ak li fi am du benn. on est d'accord intention boobu baax mais ça n'a pas été fait comme moom ni mu ko bëggee d'autant plus que ñi ñu waroon fay ñëpp on les a mal payé. d'autres ne figurent pas sur les listes fi ñu toll nii am na ñoo ni dañ leen di génn seen kër seen location. Il y a des malades parmi nous ñoom ñëpp kenn fayu leen xaalis bi ñuy fayeeku nii on fait à peu près huit personnes mais bi mu duggee chemin de fer ba léegi mënuñu wax ak kenn ku ñu identifier non seulement ci listes yi qui ont été falsifiés, sur les montants qui ont été falsifiés et on a des preuves à l'appui cheminots nag képp ku leen xam di nga leen xam ci fulla ak fayda ci mën a xeex ci mën a xeexal suñu bopp ci mën a suñu bopp Macky le président Macky moom la ñu interprété nu mu gën a si 5 5% ñu personne ne l'a signé ñi fi c'est une minorité de 4 5 personnes ñu ñew fu muy démé ñom ñoko jël sommes les koy si ñu ko ci. ban façon fay lañu fay si tu donnes la parole à n'importe qui ils te diront qu'ils ont mal perçu les montants varient entre 2 millions et 120 000 francs et 85 000 francs certains même disent qu'ils ont reçu moins de 50 000 pour un gars qui est venu là depuis 81 81 ba 86 tu as moins de 100 000 francs. On a le même grade. On est venu ensemble au chemin de fer. nga perçu 1 700 700 moi je fay ko 300 000 400 000. nous danoo sonn li nous son sonn Donnons nekk ci gannaaw Macky Sall di ko supporter di ko supporter. militant APR en même temps cheminot li ma nekk du ma ko nëbbu. topp ci président Macky Sall ba mu génnee lii ba mu génnee ko génnee na ko ci anam yu normal nag ñu ngi koy ci gërëm bu baax ndax anam yi ko un milliard nangam laa la wax quatre-vingt ak quelques millions ah ñëw na mais liñ bëgg mooy comme chèque yooyu ñun yin débauché woon xaalis bi état yin président Macky euh, président Macky Sall ba mu génnee somb toll noonu ñun état yooyu lañ bëgg rek mu teg ko waxuñu cinq pour cent waxuñu dara état yooyu nga xam ne moom lañ dekese woon xaalis bi nan ñëw teg ko ñu fay ñu comme jot na noo fay état yooyu bu ko tegee xam na lan fayoon ah. complément bu mu complété ko jàmm na mooy